taalibe yépp sama bokk yi jullit yëpp sama cant ak sama bokk yi Hizbut Tarqiyyah yi waxoon naa leen ne leen du man du yéen lépp sëñ Tuubaa sëñ dañoo jóg rek ma xelmati leen gëstu leen tuuti gëmewuma leen ma ànd ak booba ba léegi kon nag mel na ni leer na mais eh, sëñ yuusu kàddu yi dégg naa ko yëpp waaye gëm naa yëpp it nag isbitar xëyaag li aju ci moom lépp alali sëñ Tuubaa gëm naa ko doo gëm naa ko te noonu rek laa fas yéenaa dund ak yéen allah feek maa ngi noy li ci sunu kanam lépp sama xel dal na li ci sama kanam ndax du kenn lépp sëriñ bi dara suutut suutut suut dara suutut lépp ci loxol sëñ na xel dal bu baax nan dundee sëriñ bi rek sunu kem kattan bu ko defee rek ñu wàcc la ca des ñu bàyyi kook sëñ bi loolu rek la